alxamis yemook ñaar fukki fan ak juróom benn ci weerum septembre ci atum ñaari junni ak ñaar bis buñ dul fàtte fii ci Sénégal bato bi doon daw diggante Dakar ak chor ñu duppe won ko le jola sux ci waxi gambi lu jóge ñaari junni ay doomu adama ñak ci sen bakan ñi ci sen mbokk dess yekko ci ay anam yu doy wax nima ko yegge moy sama yaay mo demoon marché foofu la ko yëgee ak ay juxom te comme dama nek ka tak mu joy jooy xaw ma lu muy jooy mu ñëw bokk ak moom jooy bi par la suite laa dégg ñuy woo sama turu papa ñi naan dem na ñi naan demul famille bi affaire yi agité wu daal ci laay doog a kon yaay looy joy lu xew mu ne ma mu kott ma rek ne ma sant leen lu xew maag sama petite sœur lu xew mu ne ma seen papa lañu wax ne moo gaañ ma ne ko non dañaa juum après moom tamit xelam may ko peut-être dañaa juum xaar ma dem port dem xool nak li ñuy wax dëgg la wala du dëgg genre ci la demee c'est avéré ni loolu ñuy wax noonu dëgg la mu nekk lu metti lu tiis mais alhamdulilah. bato bi bu mu suuxee déjà ñun dañu ko nëbboon parce que dafa fekkoon ñu nekk vacances ma sama cousine ki nga xam ne moo ak sama yaay ñoo bokk nekk baay doomam tamit man ak moom ak rakkam ak sama rakk bu góor dañu nekkoon vacances sama kër nijaay sama magu yaay donc bu mu jotee. téléphone bi dafa sonné ben yoon rek mu continuer toute la journée téléphone bi di sonné ñun nëbbuñu ko xam nga rek Sénégal dëj bu amé ñëppay ñëw ñu tëj ñu ci salle à manger bi ñu won ñu génn bu ñu bëggee journal ñu ne ñu seetaan leen dessin animé donc neub nañ ñuko presque une semaine parce que dañ doon autre corps yi chercher corps yi def certificat de décès ak yooyu yëpp ñu fuyee fuyee gisunu man nima ko yëgee dama démon lettu ji parce que dañu doon euh dem la ngeen lettu ji sen yaay bu ñu ñëwee dañuy yandu ci kër tata rakam ñu def fa yendu ay tuur duñu nax daal comme que ay xale lañu wax dañu doon nax ma dem léttu ji toog fi ma doon léttoo ma gis TV5 ma gis ni naufrage dafa am gis ni amna na ay rescapé ma gis ay affiche ak yooyu yëpp i naufrage daa am de bi ma ñibbisee ma ne sama cousine bi dafa mel ni naufrage dafa am ñuy joy, ma ne ko bul jooy mais dafa mel amna am na ay rescapé nañ ñaan yàlla suñu yaay yi bokk fa gis naa benn tableau léegi jeudi soir une semaine après lañ ñu def réunion ne ah yàlla de lii la dogal seet nañ ba sonn koor yi waaye gisuñu man ñoom pour ñoom man yëguñu ko mais ñun yëgoon nañ bu ñuy wax ci suuf ñun yëgoon nañ nekk suñu côté ñun ñuy jooy rek ñun ñu toog ñun toog fa di jooy daal noonu lañ ko xamee mais xam nga dañu jàppoon ko ay xale lañ donc ils nous ont pas dit à temps dañoo essayer protéger mais xam nga avec le médias rapidement on on sait les choses. Franchement, m'a suis en de me faire deux ans. Euh, je ne savais rien du tout. Je ne savais pas son papa. Je ne savais pas, j'ai aucun souvenir de lui. Euh, voilà, euh, avec l'âge, je suis en train de commencer à m'expliquer ce qui s'est passé.

jàppoon naa ni ba boto bi surux na mais sama papa xalaat ne dina dina dina dina dina des si boto bi loolu mosuma koon xalaat bu man boto bi surux na mais tôt ou tard dina ñëw ci laa toog di xalaat di xaar di xaar ba léegi si nii gisuñu. mu nekk histoire bu metti buñ dul fàtte ba faw mang ci ñak sama rakku papa bu ñuy wax eh, Mamadou hmm di rak ci sama wajur bu góor eh, mom lañu ñak ci bato bi eh, mom mu nekkon magistrat demon Ziguinchor di de formation retour bi nag si la jéye am mu ñak ci bakinam waye yalla defal ñu sutura ba nga xamantene mom gis nañu korom ba ba ba denj ko affaire bi wax de yalla daf ma xawone traumatisé donc euh, mun ma ko woon daf ma bett te lula la bett la donc tok n'a pratiquement di xaar sama wa kër yi ñu ngi may wax ni nañu def dëj bi yoy yep man gëmuma woon ko parce que xalé yi day ma taxone trop trop trop trop donc ma tok me déconnecter carrément de la réalité. jamono le lu du ci de la nation a 18 ans wala ñu weesu ko ñu ñaan autorité yi ngir ñu outal leen ay formation yu mengok ak seen profil. Enfin, yi ci bari légui majeur nañ

commencé liggéey ak ñoom xale munoo kaa gungee man may liggéey en tant que sociologue kon tàmm naa di def suivi psychosocial suivi psychosocial amul date limite c'est par rapport ak nit ki nit ku nekk ak lu mu soxla noonu nga koy toppee mënoo jël nit nga topp ko ba mu am fukki at ak juróom-ñett nga ne ko déedéet yem na fii sama dimbal fii la yem déedéet ku nekk ak ni nga koy jàppalee par rapport ak problème am nu mu toll nañu jàppale xale yi gunge leen parce que ñu bëri ñu ngi fii bloqué nañ amuñu réinsertion socio-professionnelle ñu leen insérer sax c'est vrai que liggéey amul kenn amul liggéey mais boo xasee ba def suivi il faut faire les structures qui son sur place pour xale bu ne nga mën ko orienter par rapport ak profil am. seen mbébét mooy ñu génne bile bateau ci ndox mi ngir ñu mën a def seen i dëj. man ci sama xalaat bu gàtt mooy suñ ko génnee woon peut sama genre gi dinañ mën a def seen dëj dinañ mën a gëm ni dëgg dëgg dëgg ni waajur gi ñuy ñàkk ci bato bato boobu ñuy waxle dem na. ndax boobaa di nga teg sa bët ne ci lii la demee waaye ñun mosuñu koo gis xamuñu fu mu demee du ci man kese bëri na ay orphelin tey bu ngeen boo leen laajte la la ñu wax defaguñu suñu dëy lu tax defaguñu seen dëy mooy gisuñu seen waajur boobu ci fan la demee gisuñu seen waajur boobu ci ab bal anam la demee kon ñu bu ñu sañoon ndegam ñun la suñu waajur des ci bato bi ñun ñooy ñaan état ci bu ko mënee na ko génn te na ko sax na ko génnee ndax ñu ñu mën a def suñu dëy suñu tëddee suñu xel peut du ma ne dina génn suñu waajur mais dinañ am conscience tranquille xam ne ni kat dëgg-dëgg kon dem na ñun famille des victimes Wa dëgg yalla bu sa papa gaañoo ci ben bërëb bëgg nga xam la mo xew la mo la mo tax mu dee bëgg nañ ko xam même féké metti na parce que chaque anniversaire day nekkaat dee ci ñun mais bateau tam c'est très important pour nous franchement. euh, le bateau Jula nekkul nekkul loo xamante ne dañ ko wara faté par exemple euh, Titanic Titanic je je pense que si je ne me trompe pas hein, c'était en 1900 1914 euh, te pourtant ba léegi kenn wu ko day gis ay xalé ndaw yo xamante ne. Euh, ba ba muy am seen seen parents yi sax juddooguñu mais pourtant ñu ngi seetaan film bi ñu ngi comprendre euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy yëg euh, alors que alors que Batalo Joola moo gën a graaw Titanic te Batalo Joola il s'est passé ici au Sénégal mais mais mais pourquoi pas aussi xale yi tamit xam histoire Batalo Joola xam Batalo Joola nu mu mel xam catastrophe bi nga xamante ne moo am foofu noonu nu mu demee pour que ñu mën di éviter. bëgg-bëgg yi changé wul depuis 2007 ba léegi ñu ngi koy woy nañ jël en considération maanaam bu dul dara ñun ñëpp ay doomu aadama lañ bu dul dara bu dul nguur bu dul xaalis parce que lépp loo ci àdduna bi day jee boo deewee kenn duñ la suulaale ak moom nekk ñu Égypte ancienne même Égypte ancienne sax boo deewee dañuy dugal say bagage mais xam nañu sax am mooy dem minimum su fekkee sax amuñu fa mbokk seen yaram na daw pour doomu aadama yi nga xam ne ñoo des ci fii bato bi nañ ko jàppee seen bopp bu dekkoon ñoom la ñoo dee dinañ bëgg ñu dëjal leen parce que bépp doobu aadama yaa ngi ñaan booy dee mu fekk la ci ay anam yi nga xam ne dinañ mën a gis sa koor ñu suul la jox la rituel bi nga xam ne mooy tax sa âme bi mën a gis lumière ñun ñëpp ay croyant lañ te dañu gëm ni que boo deewee am na yomal xiyaam ci loolu yëpp lañuy sukkandikoo te nee nañ boo deewee ci yenn anam yi sa am du reposer en paix même si y de la religion musulmane dit ku dee ci lakk ku dee ci ndox ak yooyu àjjana nga jëm directement mais képp ku nekk ku dee yaakaar naa am nga droit ñu dëjël Aidara ñàkk ci ñenti doomam di wax soxlawul benn yoon ay ndàmpaay li mu bëgg rek mooy justice def li ñii ñi oo nañ ma plusieurs fois pour affaire kii ma man soxla ma indemnité Euh, lu ma soxla moom mooy xam lu xew lu ma soxla mooy justice mun a am ñu wax ma exactement lan moo am lu tax samay doom be léegi gis leen lu tax ñu des ci bateau bi lu tax ñi ñu bare nii ñu des ci bateau bi lu tax bateau bu nga xam ne cinq cent cinquante la ñuy wax environ cinq cent cinquante lay jël lu tax ñuy wax ni deux mille personnes mille huit cent soixante trois ñoom ñoo fa des officiellement Je yooyu laa bëggoon ñu préciser ma ñu leeral ma donc ma daan gëstu di def ay action pour affaire boobu naka lañ ko mën a euh, lañ régler problème boobu mais comprendre ma lu tax bateau bu jël 550 personnes ñuy wax 1863 victimes pour moi, ce c'est pas compréhensible et c'est pas normal après may militer pour def ce qu'on appelle un changement de comportement que nous ñi ñu mën a gën a s'en ci seen euh, doxalin euh, ci sen euh, jëf pour que yu mel ni bañ am ah, di réclamer justice. Pape Omar Fall ñak ci papam di wax ne ay souvenir kese moko déssé wanté wante les souvenir balaa mu koy am day sonn. Euh, explication yi moom euh, bëri na quoi parce que déjà bu ma expliquer euh, daf ma expliquer sa papa sama papa nu mu nu mu nu mu doon dundee ak man genre chaque fajar daf ma naan fop doxantoog man si tali bi génn ak man genre daf ma buggoon trop trop trop bëggul may mer affaire yooyu noonu mais san ne que des souvenirs parce que xaw ma xaw ma xaw ma xaw ma nu mu demee quoi c'est juste comme si comme si j'étais dans un film je crois quoi parce que du loo xamante ne damay fàttaliku des fois da toog da ngay bëgg fàttaliku mais mais dara du ñëw. dara du ñëw moom métti na trop nag métti na métti na trop parce que métti na trop parce que déjà boo jëlee ay photom rek di xool rek nga bëgg fàttaliku di forcer di bëgg fàttaliku te doo gis dara euh, c'est très dur franchement il m'a toujours manqué euh, je n'ai cessé euh, une seconde euh, sans sans réfléchir sans sans penser à lui quoi en quelque sorte nous nous mu mënuma mësuma toog benn jour te xalaatuma ko affaire yooyu noonu du ma xam daal en quelque sorte xaw <laughs> mais daal.

dinañ ko mun a teel a traité wala teel a traité dañu wax ni nañu préparer relève bi ñun ñu nekk ci gannaaw ñu bay suñu doom yi suñu sët yi ñu bay leen ñoom ñuy combat bi. loolu stratégie la pour être sûr que ñun suñ fi nekkulee ëllëg combat bi dinañ ko mener parce que ñun gëm nañu ah ni ben un jour ou l'autre justice dina am un jour ou l'autre dinañ renflouer am na bateau yu ñu renflouer ñu am yu nga xam ne def na plus de cinquante ans am gëm nañ ni suñ point de revendication yëpp dinañ ko am ji nga euh, même les les les les indemnisations gis nañ ay kii euh, euh, Rwanda temps yi am na ñu ñuy arrêté ci génocide bi boobu tam yàgg na donc partout dans le monde problème justice nit ki dafa nit mënul dund sans justice état bi dafa war a jëli leçon ci bile xew-xew ngir mu jël ay mesures yu matt ngir bile jëye bañ a amati fii ci Sénégal. Euh, pour ça aussi euh, l'état l'état dafa war dafa war a dafa war a tirer ci leçon li nga xamante ne am na fi euh, jël jël ay mesures jël ay mesures yi nga xamante ne moo mën a éviter lii nii lii nii nga xamante ne moo am te lool noonu rôle am la quoi ñun mënuñu lu dul wax sensibiliser. munoo ben benn bateau bu jël euh, bu def bu def 500 personnes def na def plus de 2000 personnes euh, ñu le seul responsable c'est le commandant qui a classer le dossier Ce c'est pas sérieux parce que donc il y a des responsables en commençant par le premier ministre à l'époque le ministre des forces armées il y a des responsables yi nga xamante si euh waron na les juger même si xox sax même même même le justice bi sax même budul. Euh, comment dire surcharge beeg euh, problème amoon euh, problème amoon si bato bi mais bu buñ ñëwee sax si la euh, si qui bi comment dirais-je euh secours bi boy xoo secours bi rek lool rek gaay yi nañ ci mënon top parce que imaginez que bato bi suuf à 23 heures ñu top ba 11 heures du matin donc lance opération de secours gars ñu fa ak à 18 heures combien de temps gars do doo agsi non, donc à qui la faute. c'est comme si que ñom dañu bëgg a jël bato bi. Pourquoi pas quoi moudé, genre parce que déjà 550 euh, passagers le nous euh, euh, près de 2000 morts c'est catastrophique te te état parce que c'est injuste c'est injuste aussi parce que justice doit avoir. Attends pour ben mémorial musée 18 ans. 18 ans mënuloo fexe bé, affaire bi euh, jóg à Attends, man ñun demoon nañ bé, parce que am na pays yu bare yu fa ambassadeurs yi ils nous ont dit ñun suñu senti état Sénégal suñu joxoon feu vert ñun rek mun nañ leen jox xaalis pour ngeen tabax affaire boobu du question xaalis chaque année ñii ñaa ngee tabax pourquoi bé 18 ans après ñuy daw ci gouvernement pour mu tabax benn kii loolu du yoon loolu koo wax du ko gëm dix-huit ans après ñuy toog amuñu sa mémorial ñuy wax affaire mémorial tey ëllëg suuf problème suuf problème kii mais loolu volonté politique la rek. rango ñi feraguñu ba tey ci suuxu batalo Joola monde bi yëpp di ko jooy ba tax na ñi si ñàkk seeni mbokk di wax nguur gi mu jël ay matuwaay génne bato bi ci ndox mi te mu def justice ndax. ñu mën a def seen i deuil. ñu wax la ni sax sa papa gaañu na mu ngi nii gis nga ko sax loolu au moins yow di nga ci génnee sa xel xam na ne dem na mais loo xam ne da dégg ñu naan gaañu na gisoo fi mu gaañu wóoru la sax na gaañu na chaque fois yaa ngi posé wu question ni benn bés dina ñëw sa porte ne la maa ngi nii chaque jour daal loolu lañuy bàyyi suñu xel nii nii nii peut-être demul dañoo juum rek wala fëlee na feneen peut-être jour dina ñëw mu perte fa mémoire jour dina ñëw mu dellu si ci famille am espoir bobu que am à sa ñu ba mu ba légui mëno gis effectivement euh, maintenant maintenant, trop parce que des fois même euh, je me pose des questions est-ce que est-ce que réellement il est mort quoi. Euh, le fait que nga taxaw jaxaru geejgi rek nga si décédé déjà tu as des frissons dina am forcément sa xol. bi nu nii nii nii lañ ko doon dundee te ñi nga xam ne ñoo xam ne ñemewuñ jéej par exemple man sam papa musul ñeme jéej tey nga xalaat ni kooku ci ci ci ci jéej gu mel nii la demee loolu dafay métti ci xool mais alhamdulilah rek la ñuy wax alhamdulilah. dinañ am lu ñu métti chaque mais dañuy gëm yàlla rek. waaw anam bu métti rek comme bépp victime ni mu ko yëgee rek ñun noonu lañ ko yëgee ndax nekkoon noo koo xamante ne ku fort ci ñun taalibe Cheikh. xamal ñu lu bari ci biir tarixa bi e, jàngal ñu tamit parce que moom yàlla def ko mayoon euh, lu bari. personnellement dëjuma xam nga lañ lañ def ñu ñu bokk village ak sama yaay ñi def ci bato bi kenn retrouvé wu corps bi la ñu jël def messe def prière xam nga lu ñu xam ñun ci dëj nga teg corps ñu def exposition yéen musulman loo leen xam jullil nit ñun catholique lu ñu xam. def mees mais koor bi dafiy nekk amuñu mees mees rek lañu am mais amuñu koor mënuma la ne sama yaay tëdd na fii wala tëdd na fii wala retrouver nañ koor bi wala suur nañ ko mbaaw wala feneen wala feneen mënuma la ko wax kon dëju ma su fekkee dëj dëgg dëju ma mais buñ ko génnewee daf ñu permettre ñu dëj li nga xam ne moo nekk suñu biir xol yi ñu mun ko génnee Duma sa wàcce Dakar ay nitam